alaykum wa maa ngi leen di dénk yéen taalibe yi yaa maxsara tulaa bi mbooleem yéen taalibe yi nag suma alaykumoo topp maa ngi leen di dollee dénk bisaal jawaabi ci ngeen jàpp tontu lii te xam ko bu baax yi nekk na ci téere bi minal axlaaxi ci ay jikko wal aadaabi ak i teggin maa yoo xam ne sa yaqoodukum dina leen ommat ilaa sawaabi jëme leen ca njub ga fii nekk na ci téere bi ngeen di jàng minal irsaadi ci njub goo xam ne wala ifaada ak i njariñ yoo xam ne maa mboolem yooyu daal la yemmalu du du yokkat njub gi nekk ci téere bi lu baax li nekk ci téere bii la yemmalu du ci yokkat minu ci valeur bi nekk ci téere bii sooxiraada kay woroom ak taalube te nam ma am ngërëmal yàlla is ngir xat xawaa làq na moom téere bi kayfiyatul wusula melaw àgg wa li ihsaanil axlaaqi ca ngën jaa rafeti jikko wal maamooli ak ngën jaa kowey mébét ngir ame ko ngërëmal yàlla sàmmaytu hoo tudde naa ko naxjal xadda il aaj yoonu fajuk aajo fi asdi sarhi sayxina del haaj ci ngóob mbayam toolab sunu sëriñ ba ñuy wooye dal haaj walaahu yàlla rabbi kay sama boroom asaalu maa ngi koy ñaan taqabula mu nangul ma téere bi bi li ci ay ngëneelam wa an yuttiima al amala te yal na ma mottalil samay jëf wa an yàkkoone yal na téere bi nekk kas mi ni ki aw turam fa yuslihu te yal na téere bi yewenal ahwaala man mbiri ka nga xam ne yaqra'uhu jàng na ko fa yuflihu te kookee yal texe wa an yu'izani te yal ma yàlla musal mina riya i ci wal uj bi ak aaw bil muxtaari ci darajaay ku ñu tànn ko muy rasulillahi si li waaxi kay boroom dara pooba yal na ma dollee musal tamit wa min si waaxuma ak yeneen musiba yu dut yaar yooyu muy ngisal ak aaw mina raza ili ca xeeti caay-caay amin wa an ya joodaliya te yal na ma yàlla may bil fada ili ca ngëneel ya amin wa an yu'izani te yal na ma yàlla musal taxalaa kay aji abada ba faaw min sari iblisa ci ayu iblis allazi iblis ma nga xam ne tamarrada aji fetteerlu la wa sarima ak ay lépp loo xam ne xalaxa sunu borom bind na ko filardi te mu nekk ci suuf wama ak lépp loo xam ne sunu borom xalaxa bind na ko fi sama mu nekk ca kaw asamaaw aw ayam yal ci yàlla musal wama ak ayu lépp loo xam ne baynahuma nekk nekk na diggante asamaa suuf yal nañ ci yàlla musal wa an ya joodaliya te yal na ma yàlla may bi ittibaay ci may waroom ak topp xayril wara ngeen ji mbindeef yi musafahi kay ku ñu ramuloo al mutaahi kay ku ñu topp ba de salaatihi ginnaaw xéewal yi ma ñaan nag jëme ko ci yonent bi jëmee ko ci alayhi yal na xéewal yooyu gën a nekk ca yonent bi bi salaami te yal na musal yooyu tamit egg ca yonent ba wa ali yi te yal na egg ca ñoñom wa saabiya ak i saxaabaam bi lan fi saam ci ludul am ndog unaaf yi nag intahat lay jeexe tarjumatul kitaabi tarjumaani téere bi fal aana léegi nag an sarifu nan wëlbatiku sunuy wax lil aadaabi jëmale nag ci njàngaleem teggin aqoolu dinaa wax kay anzima ngir ma bind ko ay way ma la nga xam ne xat nasara wesaroon na ko a sayxu ahmadu sang ba ñuy wooye sayxu ahmadu allazi sayxu ahmadu ma nga xam ne tabahara géej ak xam-xam la yaa mahsarat tulaabi mboolem yéen taalibe yi na ngeen déglu min ci man sëriñ Tuuba dafa taqdim da ngeen déglu nasiatan samak laabire gi nga xam ne ankum jëm na ci yéen te su ngeen ko dégloo tat faxu dina leen fegal saqaaxan ak texeye di foofu dafa taqdim nasiyatan ak laabire la lakkum ñeel leen li wàcci leexi ngir jëmi yàlla ja tanbiha dina yee nag kulli xaafilin jépp aji sàggan wasa itay boroom ak njuumte